jot ñu jël ci suñuy responsabilité parce que du wàññi dara dara la dul wàññi mel ni loolu rekk farata la te boole koog liggéey nag te boole koog liggéey am na bés ma di ci waxtaan góor booba ci àll bi rek la nekk booba maa nga kër góor gi njawar cuun maa nga mbooro maa ngee bay maa ngee bay gerte maa ngee bay dër lu ne maa nga ci ndax dama am najaay bu ma ci xiirtaloon Alioune Kane wallaay ndeysaan waaye sama tool ba woon ci kër Njawar Cuun moom noonu laa ko ñàkkee ndax sëñ Babacar daf ma ci defar ñaan rek ma dem sotti ko ci pax ma pax ma génne phosphate loolu de kenn mësu ko gis mooy phosphate bi ngeen di dégg maa ko moom yàlla xam na ko maa ko moom de bés bu ne autorité yi ni ma sa yëf la wallaay da nga gàttañ lu rek ma ne ah gàttañ lu ma dama amul doole wax dëgg yàlla bés bu ni ñu wax ma ko am na ko fi toog sax maa ngi janoog moom wax na ma ko bërki dem ma da ngay bàyyi noonu sa yëf yi rek ma ne ko ah, aw ma doole donc daara la yàlla xam na ko ba ci seen ICS bi ngay gis ah waay li tax mu bloqué maa ko xam maa ko xam ah Senghor dafa dem ca iranien la ni ñu tabaxal ko dëkk ñu commencé di dox loolu ba muy poser première pierre bi te ci ñi mu ci jëkk waxtaanal ca la bokk muy posé première pierre bi invité wu ci ma gis ko mu ni daal dafa ci xelam a jaxasoo ma ne ko kon di dëkk bi du mu ne ko parce que nag dañ ci waxtaanoon ba sore ci waaye dëkk bu mu julaam loolu c'est-à-dire ba dañ ko def coup d'état te ma ko waroon defaral Senghor mais ICS allemand yi ñoo ko liggéey projet bi maa ko xam toog nañu ñetti fan ca gore di ko liggéey yàlla xam na ko waaye mu ngoog rek yëf yaa ba tax na lu ci ne danga cay dox sa wàll danga cay dox sa wàll boo buñ la buñ la ràndalee it nga ràndu rek laa xam ndax taalibe moom buñ ko ràndalee it mu ràndu waaye am na ñoo xam ni ah ñoo am kilifa gu leen protégé du dëgg léeg dafay am te góor gu mag gi tam ma daan wax ni ma yaay seen tuur ah. waaw yaay seen tuur yaay seen tuur yaay seen de ma ni ko xam ah, ne ma waaw loolu nag gëm naa ko bu baax mel ni kon taxawaay rek la ak di ñaan ak di liggéey waaye lu dul priorité nag jaru ko jaru ko def ay itam dem ba nekk otage kenn du ko nangu baaxul te système bi ci boppam moom baaxul système bi moom adduna bi moom baaxul da gis ni boo duggee ci entreprise walla lu mu doon dañu lay mujje jàppe otage par force nga jaar fi ñu bëgg kenn mësu ko gis kenn mësu ko gis ma wax na mas naa ko wax Abdou Diouf mu ree ba tëdd ci suuf ma yow daal yow yaa féex dem ma ne ko féexuma li ma wax dafa am ma ne ko parce que investir ay milliards ci mbir te boo buggee dix millions boo ko sàccul doo ko am loolu kenn mësu ko dégg waay seetal loolu mooy dafa soxor dañuy def nit ñi ay otage yàlla waxoon yonent bi ni ko boo boo tëralee affaire mone rek àdduna tukki parce que fu muy jëm moo dul baax te du sa priorité sa priorité mooy jikko yi defaral jikko yi bala nga fiy jóge defaral jikko yi bala nga fiy jóge mooy sa priorité waaye boo duggee ci affaire mone gi da nga ciy lakk lu ko dang ciy leb ah ko boo duggee ci yooyu dang ciy leb moo moom jikko rek moo doon priorité waaw